la Fimex moo leen di may. baarikàlla sant yàlla indi laay baarikàlla indi laay baarikàlla indi laay baarikàlla laaji indi laay baarikàlla indi laay Bijay Sané. ak si la jàmm waaw. waxi ni mm-hmm. bi may ñëw fii di fi sëy si. Mm. ma jël si woon si nga bokk. Mm-hmm. un mm-hmm. yàgg na. dëgg sama nijaay dafa changé. Mm. Mm. bu changé woon yem si rek mu neex mais dafa changé boole ko téye dépense wax mu ne aw ma loo wax mu ne yoru ma. du yoon te man dundee ma noonu. du yoon. qualité gaay yi suñuy tank suñuy bët mm. sama nijaay la mu wax mu tek ci naxay di rek di ma jaay jaay hmm mm, mm, du yoon ak kama ko mën jaay ndax sama nijaay la mu rek pank na taxaw hmm hmm mais nak dari bu sama borom keur di sama sanga ba mm-hmm. fuskee ne kaa tarbiyo nag mm-hmm. mm-hmm. lama wax rek mu ne geeg gi dafa kaaye geeg gi dafa amul jën geeg gi yàgg naa kaaye ta mu di ko joxe waye bu changement amé ma sool sama dal lay ñew ci yow amna lu may seet xam nga nijaay sané lama bëgg sama nijaay mu wax ma mom la kale Hmm. yow xam naa sama ndijaay yendalul fanaanalu te xam nga si dara mm. ndijaay saane ak maa mën a sama ndijaay mm. mm. maa ko mën a faj maa ko mën a lijjanti maa ko mën a wax man la kan dama dama taxal yeewu ñëw si yow baa ko mën lee fajal am naa beneen façon ma ëpp naa def ëpp naa def ëpp naa def solution day am solution day am man gërëm naa la euh, ndax lii nga def mooy yoon ndax nag euh, euh, euh, sëy moom bu demee ba tojantey bopp nar caa am ñi ci war a jóg na na nanu ci jóg géej géej nag day taxawee noonu léeg-léeg waaw xam nga géej ñun contrôlé wuñ ko yëfi yàlla la géej léeg-léeg day def noonu danga fay dem di fa fekk ay neige ak ay glace léeg-léeg jën yi dañuy dañuy dañuy tuxu di doxantoog yooyu di sori waaw léeg-léeg gaal yi tëmb dem duñu fa fekk dara yooyu day am ci géej waaye moom yàlla suñu borom dafa ne bu ngeen di jël soxna jël leen ko ci charte yii charte yii nag mooy dundal sàng dëkkal dëkkoo waaw yooyu yenn war bu ci manqué yi waxtaanu solution la ndànk-ndànk waaw li lii espagnol yi naan poco poco poco eh, anglais yi naan ko eh, eh, step by step noonu nga koy defee sa jabar maaye doo ko ko jëñëx rek forcé ko ko très bien moom nag manqué wul lu mu la jox li tax mu def ko it xamuma ko léegi nag melal ni ñëwoo fi say tànk ak samay tànk damay damay damay damay damay naafi la ñeenti ràkk yoor yoor yi rek maa ngi ñëw ni jaay Sané dama dégg say wax nga ne yor na lu ma jox ah yor na ko kon xam naa li mu nekke yow mi waaye nag sama nijaay mën naa koo faj si bëccëg waaye mën naa koo faj ci guddi non damay bañ nga jël wax ni jaay Sané ni jaay Sané sama nijaay na mu nekke xam na tax ndax sa kër gi yaakaar naa ne mu ngi koy dëbb ba mu mokk waye nak bu ma fekke ci kër ga dina ka deug ba mu moko waye dama la lo wonne sax amna kilifa Ndiaye Sané ñu yennu jamm mom nak dafa dafa dafa dafa actif dafa tang ah yow ñëw nga dima bolé mané la ma ngi ñëw réglé ko bu dëbb kër ga nak yow tamit non non xalewul dara xalewul data ah, bien waaye dëgg naa baax ah, kon yow yow yaa ngi doon bu ko muccu ñaan ko bàyyi déglu waatee déglu xam nga bàyyi yërdu waaw damay samay affaire bi c'est pas de ay déglu waatee du genre affaire yooyu noonu ñaari nit dañoo jege bu nekk discuté néeg bi waaw néeg dañ koy déggante c'est normal femme li mu wax nii dégg naa ko bu baax li mu wax lu leen nañ la wax donc lébu yow da nga ko yaa ko lébu da nga ko war a ñuus mu si si si may ma lekk mu lekk lekk ah ah waaw yow te te yow tey maa laa yónni nga teg léegi non dëgg mais yow man so man moom benn session la waaw mooy dama koy ñuusam lekk si xam nga tax parce que gaay yi amuñu lese ci ci jigéen ñi ah amuñu amuñu parce que jigéen ñi am ñom dafa mel ne jigéen ñoo leen jom ta ñom ñoo jomb jigéen ñi senegal kese nga gis jigéen jigéen ñi ñoy liggéey ñoy ëmb ñoy wasin di daal ñooy toppatoo xale yi ñooy laxas ñoy fort ñooy plan fa fa diine da kaa wax alxuraan dañuy jigéen ñi ñoy force ñoy ñoy fort ñoy laxas ñoy lool fort la way lu sa ñam ci jabatu jàmbur mais boy gi nga boy way bi so xol xamne ki boy booy bi moo la waaw damay eh, jabaru eh, ya jàmbur ngay waxal de eh, su xoolee ba gaay na ko coppatee ko saa yi du ko taxaa ba sama classe bi su booy tegoon seen loxo bi gaay du ko gisaane bu ko jël taxaj ci kaw da ko taj ca kaw aj ko jëriñ ca kaw te ko di ko tafaroo di ko defal ba ne bay tak sama bët bi kenn du ko laal lu mu ma defal mais boo yee machine lañ ah bàyyi leen loolu ñan gaay yi faay fii seen seen groupe bi man ci laa bokk. fa yow mënoo cee bokk ak yow maa yow amoo jabar. waaw ah, kay mais nag gars yi gars yi nu ñu dundee ah non seulement non waaye ma ci laal ba sax ci laal ba sax gars yi góor yi léegi gars yi lañuy def booy yi ñooy tal culaay yi ñooy defal ay affaire takk seen i affaire ñooy jéggi-jéggi xam nga ñoo ciy nekk bax ba mbasa mbasa saa yi doon jug gars yi di xale xale yooyu man saa yi man su man yooyu su du ma ko maye du ma ko sëy du ma ko maye sama doom waaw nañu respecté les femmes man sa dem nga dem ak nga ñàkk dem man li may wax maa koy wax sama làmmiñ maa ko moom di nga ma dégg te ak kay ak kay di ma dégg investir ngeen rek kenn jaloo melitu leen sax yol jabal ay sewas ngeen rek ay ay carbone sax la leen wala jox mais pas les femmes ça mën a fen. yow ba dama rek lu moo tax yow ah kii ah kii ah xam ne ko da wax bàyyi nga gees te yow nga ne yow doo bàyyi gees yoo xam ne nga ku ma doon toppandoo. Régis Fall. Régis Fall pes laa ko pes pes jaar laa ko doon xaw ko la. mu gëm ko. may ah xaw ma. xaw ma léegi fa xanaa la nga nga bàyyi nga bàyyi nga bàyyi nga bàyyi sa kii sa gees yi ngay gees laax nga bàyyi ko li ngay def nii. ñaaw xew xewul ñaaw. xew la. lekk tedd jar naa sant yàlla ya bëgg tuur ndox rek def ko xaw ma woon ne waa ah boo demee maa nga ma teg ca duus de waa eh waa sama ndogu li ñu <laughs> xam ngeen li ngeen di lekk. li ngeen di lekk xam ngeen ko. ak ak meew. Ah, mbulul ak meew. Hmm. fu sama ku ko jëlee fee. ci yéen ah! ñaar ku ko jëlee hmm? fee ci yéen ñaar. Hmm? ma ne ku ko jëlee fee ci yéen ñaar. sama mbulul ak meew mi ku ko jëlee fee. da ngaa jékki-jékki rek mu gis ko. gis ko xam nga li ah. may nekk ñun. Ah. wallaahi ab taalibe. taalibe moom moo ko may fii. benn taalibe. fii ah. wallaahi moom yow da leen ma ma ñëw léegi nii maa ngi egg sa 어, 아, 근데 내가 물어보면 니 해봐. 어? 물어보면 니 해봐. 우리 무슨 사이? 싹 둘레. 물어 매우 나 물어 매우 물어 나. 매우 나 딱서 거래 이런 거라서. 어, 와, 살아. 아까 너 내가 아유, 뭐야. 미안해. 맞아? 미안해. 매우 매우 삼래. 아. 와, 뭐래? 아, 오늘 너 컨텐츠 La Fimex moo Merci de suivre les programmes de Game Vision.